yaa xayu yaa qayuumu yaa zal jalaali wal ikraam hasbuna allah wa nixmal wakiil assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu ñu ngi jullit yépp nuyu jullit ak mbokkam jullitam di nuyoo bu sell di ñaan suñu borom subhanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yéen màndeem ak ak njëggalam ñuy dellu si waat ci suñu jataayal yóbbalum ndaw ñi ginnaaw suñu nuyoo muy jataayal xam-xam di jataayal fàttali konte mu nekkoon doon jàngale téere bi di na fiis ñu tolloon ci wàllu yi nga xam te ni ñooy jàngale ci birum julli ñu nekkoon doon jàngale faratay julli ak ay sunnaam ba toll nag ci lan mooy ngëneelal julli ya ginnaaw bu ñu weesoo farata ya ak sunna ya kon sunu bintu tey ñu ngi tàmbalee ci bunt bi jàngale ngëneelal julli moo tax mu wax ne faslun lii ab dog la fii fadaa iliha ci ngëneelal julli ya wa intasal ndeem danga laaj xan jumlatil fadaa ili ca mbooleem ya fa xeeka jàpp alxaddaha seenub lim huna fii yaa saa'ili yow sama aji laaj kon dafay mel ni dafa tàmbali ci ngëneelal julli yi bu wax ne yow mi nga xam te ni da ngay laaj yan mooy ngëneelal julli na jàpp lim yi ma lay bëgg a limal da nga jàpp ne mooy ngëneelal julli rafon yadayni mooy njëkk yëkkati ñaari loxo ya aswa usnayka ba mu tolloog ñaar sa ñaari nopp loolu mooy njëkk yëkkati ñaari loxo ba sa ñaari am na ñuy wax ba mu tolloog say mbagg waaye nag dafa lim fii nga yëkkati sa ñaari loxo ba mu tolloog say nopp la daa takbiratil ixraami fa kàbbaruk almal ba min ha bokk na ca ñoom xadd ba daa feeñ na kon da ngay yëkkati sa ñaari loxo booy kàbbar kàbbar bu jëkk ba moom la ñuy tuddee kàbbarab armal kàbbarab armal mooy farata waxoon nañ la ca farata ya kon nag booy kàbbar kàbbar boobee da nga yëkkati sa ñaari loxo ba mu toll ak say nopp mooy kàbbar bu njëkk ba kon yëkkati bi ngay yëkkati say loxo moo xam bu mu tolloog say nopp la tiim fii wala mu tollook say mbagg kon yëkkati googee nga yëkkati loxo ya ngëneel la kàbbal ba ci boppam nag mooy wax allahu akbar ca kaw mooy kàbbarub almal loolee mooy farata alhamdu ak cant wala ak wax baxda rafxin ginnaaw yëkkatiku min rukoox ca rukoox ba lil fas si ñeel kenn wal maamuumi ak maamuum zil xudux kay borom toroxlu bokk na ca ngëneelal julliya boo siggee ca sujjóot ba nga wax sami allahu liman xamida waxoon nañ la sunna la rabbana walakal xamdu mooy ngëneel kon ginnaaw boo indee sunna mooy sami allahu liman hamida nga wax rabbana walakal hamdu kon loolu bokk na ci ngeen ne rabbana walakal hamdu loolu nag dina xaw a indi ab ci yow bu dee jàppoo woon ne yow mi nga xam da julli yow dong boo siggee da nga naan sami allahu liman rek yam ca loolu mooy sunna si waaye nag dañuy sopp nga teg ca rabbana walakal hamdu bu dee yow dong waxee sami allahu liman hamida nga teg ca rabbana la bu dee nag la wax moo tax mu ne hakaza niki noonu attaamiin wax amin aydan ba tey lahuma ñeel na ñoom ñaar fi ci yaru aw fil jëxye wala ci biral yin dal xolama foo way xam ya kon bu dee kenn rek mooy julli bu waxee bu siggee ci rokkoo ba maanaam bu jàppee um, ba siggi bu waxee sami allahu liman hamida ngëneel la mu wax rabbana walaka alhamd bu dee nag moom ci boppam daa nekk ci ginnaaw imaam maanaam moom dañu koy jiite kon bu imaam siggee na sami wax liman hamida kon moom rabbana walaka alhamdu lay wax kon imaam sami allahu liman hamida rek lay wax du yegg ci rabbana walaka alhamdu mu ne tamit wax amin bu fekkee imaam dafay jàng ci kaw di wax ci kaw jàngee faatixa ba jeex moom imaam danaan tekk léegi nag ñi nga xam te ni ñoom lay jiite mooy maamum ngi ñooy wax amin bu dee dafay jiite bu dee jiitewut kenn nag sopp nañ ci moom bu jàngee faatixa ba mu jeex mu waxal boppam amin wax ko ndànk ci suuf moo xam day biral maanaam moo xam day wax ci kaw moo xam day wax ci suuf mu wax amin ndànk ñi nga xam te ni tamit imaam day bi jiite nga xam ne ñoom dañoo topp ci ginnaaw imaam bu imaam jàngee faatiha ba wax amin waaye nag ci suuf lañ koy wax ci ngir imaam Malik am na yeneen ngir yoo xam te ni nekk di nga gis imaam mën naa jàng ci kaw ba faatiha jeex mu wax amin ci boppam moom ci boppam ci kaw waaye nag bu dee ci ngir imaam Malik ndànk lañ koy wax moo xam imaam ndànk la koy wax moo xam ñi muy jiite mooy maamum ni amin ji buñ ko wax ci kaw dañ koy wax ndànk rek mu ne amal imaam naal imaam mu nga noonu moom lay wax noonu fa yaquluha dana ko wax te dal israari fa yalu ka faxat dong bi laa ijhaad ci lu dul biral kon mi ngi noonu bu dee imaam day jàng ci suuf mooy waxal boppam amin bu faatixa ba jeexee ndànk bu dee day wax ci day jàng ci kaw bu faatixa ba jeexee danaan teg ñu nekk ci ginnaawam wax amin ndànk mu tax mu ne bu dee yàllu ci suuf bu dee biral rek moo xam yàllu moo xam biral waxut da ak lim ngay lim tasbiha rukuuxi sàbbaaluk rukuuxa ba mooy ba jàppee si óob wadduha ak ñaan ga inda sujuudi fa sujjóot ga kullu man koo xamte ni waxaa wattu na fiqhan fiq mais na ngay jàpp tamit ci ngëneel ya bokk na ci ngëneel julli ya sàbbaal gi nga xam te ni nit ki da koy sabal bu fekkee dafa dem ba rokon mooy bu jàppee ay omam mu wax subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi ñetti yoon ñetti yoon yooyu mu koy wax ngëneel la bu dee nag sujjóot day boole sàbbaal ak ñaan sujjóot subhaana rabbiyal ahla mooy sàbbaal gi allahumma ixfir mooy ñaan gi yàlla yàlla yàlla nga ma jéggal kon su bu dee sujjóot nag dañuy sopp mu boole sàbbaal ak ñaan ndax sujjóot dafa baax ñaan dafa baax ci sujjóot kon yooyu sunna la tatwiilu naa sunu guddal as subha suba xiraatan ak jàng tabiyiinu bay aji biir wala yabiinu bay aji biir fadilatan gëneel la wa zuhuru ak tisbaar duunaha ak yéesam yakun dana nekk taqsiruha ak gàttalam fil xasri ci tàkkusaan summal maghrib topp timis summa xib topp ngalim tawassutan digg doomu la dal isa fagee fagee mu nekkat bokk na ci ngeneel ya mooy guddal gi ñuy guddal bu ñuy jàng ci jullik suba saar ya ñuy jàng julleek suba daal dañuy sopp kon bokk na ci ngëneele booy jàng ci julleek suba nga xool saar yu gudd nga jàng ko nga jàng saar yu guddi yi bu dee tisbaar nag saar yi nga jàngoon ca suba nam guddee nga xool saar yi ko gën a gàtt tuuti nga teg ko ca kon suba mooy gën a guddi saar tisbaar topp ca kon booy jiitee suba bu dee nag da ngay jiite ay mbooloo nga xam ne yow da ngaa jiite mbooloo nga xam ne mbooloo moom xamuma ne am na ñu ci nekk ñoo xam ne dañoo feebar wala am na ñoo xam te ni taxaw taxawaay bu yàgg wala am na ñoo xam te ni am nañ ay yitte kon boobaa nag nga war nga bañ koo guddal mooy gën bu dee nag ku mel ni yow doo ngay julli wala ñi ngay jiite xam nga ne ñii kat amuñu yitte yu mel noonee amuñu ngànt boobaa mën ngaa guddal waaw bu dee nag leer na ne dafa am ñoo xam ne am nañ ngànt yu ci nekk ak yooyu nag boobaa man ngaa gàttal rek bu dee tisbaar tamit noonu saar ya nga jàngal ci suba na mu guddee nga wàññi ko tuuti jàng saar yi ca topp topp ci guddaay ba bu dee tisbaar bu dee tàkkusaan mu gën a gàtt tàkkusaan ak timis ñoo yam nga xool saar yu diggu dóomu ya waaw saar yi nga xam ne ñoo gën a diggu dóomu nga jàng ko ci tàkkusaan ak timis buñ ne saar yu gudd nag ñu ngi koy jàpp ci saar yu gudd yi ma nga tàmbalee ci sóoratul Hujuraat ba sóoratul Habasa mooy saar yu gudd yi saar yi nga xam te ne ñoo topp yu digg doom yi ñu ngi tàmbalee ci sóoratul Habasa ba sóoratul Duhaa mooy saar yu gàtt yi nag mu ngi tàmbalee ci sóoratul Duhaa ba sóoratul Naas mu ne wa nekkuk saar ya uulaaya yi njëkk at wala mooy gën a gudd min saaniyatin ci ñaareel ko minal fadaa'ili bokk ci bokk na ci tamit booy jàng ci rakkaa yi rakka bu njëkk ba saar yi nga jàng moo gën a ngay saar ngay jàng ca rakkaab ñaareel kon boo jàngee saar bu gudd ci rakkaab bu njëkk ba ngëneel la saar ba ca topp ci rakkam ñaareel ma nga xool saar wu gën a gàtt woowee kon loolu bokk na ci ngëneel wala hayatul maxluumatun ak melaw yu ñu xam ya xindar rukon rukon ya maal julus ànd lim na ko ahlul furoox ñooñ bàngaas ya mu ne tamit bokk na ci melaw yi nga xam te ni moom lañu xam ci kuy rukon mu def ko maanaam mooy mu sëgg jàpp ay bëti omo ak buy toog mu toog toogaay ba nga xam te ni kuy julli moom lay toog mooy toog ci ay njekkoom bañ a toog ci ay tànkam te génne ñaari tànkam ci wetu ndeyjooram te tànkum ndeyjoor ba mu génne ko samp cati baaraam daal di bàyyi tësër ni mu génn ci kaw toogaay boobu moom lañ taamu ci toog bañ a toog ci ay tànkam tànkam mu ne loolu nag bokk na ci ngëneel maanaam sëgg gi ngay sëgg jàpp say oom def gi nga koy def li nga xam ne loolu ñëpp ràññee nañ ko ak toogaay yi nga xam ne moom ngay toog loolu dañ koy lim mu bokk ci ngëneel wa faddalu bokk na ci ngëneel alxunuuta xunuut wal ishaara ak yalu ga bii ca moom xablan xidaaxer li rukuuxi njëkk ak sippiku wala njëkk ngay rukoon fantabix na nga yow yaqara dana jàng fi saaniyati subuxi ci rakab ñaareelu suba faxat dong bax dan xidaax i gin bax dan xidaa i suurati ginnaaw jeexalub saar ba faxawatul xalaat njuumte mu ne tamit bokk na ci ngëneel yi julli mooy xunóot li ñuy wax xunóot te ñu ngi koy jàng ci bu dee julli suba ca rakkam ñaareel ba xunóot moom mi ne rek bokk na ci ay ngëneelam ñu yalu ko am ñu wax ko ndànk kon jàng googu ñu koy jàng sopp dañ koo sopp ngëneel la te fañ koy jàngee nag mooy ginnaaw bu nit ki jàngee faatiha jàng ab saaram ba jeex nga xam ne war naa rukon ci diggante boobu naan tekk jàng ko ginnaaw bum mu jàngee faatiha ak saar ba jeex njëkk muy rukon ci la koy jàng wa jawasu dagalal na alxibra fóori ba alfaqih kay aji dégg fiq ibnu habib kay doomu habib waqu moxa ak taaj bem bax da rukon ginnaaw rukon yàlla bib yoo aji xelu ja mu ne nag ku ñuy wax ibnul habib te ab fóore la moom kat wax na ne daganal nañu fekkee danga koo fàtte jàng ca ginnaaw boo ginnaaw boo jàngee fàtte ak saar pare nga xam ne rukoon boo rukoon ba siggi nag nga xam ne léegi li war li yaa ngi war a dem sujjóot ci diggante boobee nga jàng ko ñu ne loolu daganal nañ ko ba tey loolu ko def dina baax waaye tàmm yi yañ gën a tàmm nag gën koo soob mooy ginnaaw boo jàngee faate ak saabam jeex kon yooyu bokk na ci ngëneel yi kon daa mel ni li ñu amoon ci waxtu dafa mat kon dañ koy yemale fii ci beneen jotaay bii di ñëw ñu fas yéene mottali ngëneel li julli yi incha allahu rabbi yàlla ñu suñu boom defal gudd fan ak wér ñu fekk ko jàmm def ko nam gënee suñu may ñu dégg ak topp kon ñi ngi ñaanal bépp jullit suñu borom defal ñu tawféex sellal suñuy xol def ko muy xol yi jullit ak képp moo xam te ni day faral di teewlu jotaay bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom jàppandil say may na gudd fan ak wér defal la tawféex defal la mujj gu rafet kon ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu yërmande ak ak jéggalam di ñaanal bépp jullit in uridu illa al islah mastataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh